Aujourd'hui, force est de reconnaître fii ci école 4 wane waat ngeen nii Bokk Yaakaar moo fi am ndam ndax réalisation yi makassal Sall def ci Bambey financement yi makassal Sall dugal ci Bambey emploi des jeunes yi Macky Sall def fii ci Bambey ca dëgg-dëgg ay góor ngeen moo tax ngeen fas yéene Bokk président yëg na ni nga

ma bëggona wax président Macky Sall na sa xel dal na sa xel dal na sa xel dal parce que fi ñu taxaw fi moy boulevard bi dem école 4 moy centre bi gëna ngand ci Mambey té ñun dañoo d'accord né presque doon na 90 ndax alaaji ja dinañ ko gañ xalé nga waaye xalé bu set loxo nga contane nañ ci sa loxo ñepp mën nañ ko wax Bambey kon tay ji ni ñun dañu contane am ku melni yow kon suñu nekkee sa ginnaaw suñu xel day daal kon président xamal ne ki nga teg suñu wet doo ko rëccu parce que ñun ñu ngi ci ginnaawam